dal leen ak jàmm mbokk internet ci mannequin ba woon di Adja Diallo tas na sëyam xolam ba mu jébbaloon footballeur bii di Ibou Touré moom la rocci ne ko mbenteng jox ko beneen góor fi mu toll nii digganteem ak footballeur bi weesu na ko ba bës jees maga ca keneen nekk ci nobante gu bees ci ay bés yi ñu weesu ñu bari jàppoon nañ ne li doxoon ci diggante kile di Adja Diallo ak Ibou Touré dafay jeex et que ñoom ñaar dañuy àndaat waaye mel na ni loolu yépp amul daanaka seen diggante ñoom ñaar sax mën nañu wax ni jeex na tàkk te li koy findeer di xamante ne jàppoon nañ ko fii teg ko loxo ngir fekke gu mu fekke woon sëy bu doxoon ci diggante kile di Bara Gaye ak ki nga xamante ne moom mooy Zeyna Diéne te yoon di leen joxoñ baaraamu tuuma ngir dañoo def ab rassemblement ci waxtu woo xamante ne dañ koy tere ba taxoon ñu di koy jàpp yóbbu ko ca brigade ba waaye daanaka ba mu fa génnee ay bukki fleur yu yànj moom lañ ko yónnee te ki ko yónnee ñuy wax ne benn waay ju baax ci ko bëgg lool la njort yu bari rafetoon ci ne moom de dafa juboo ak ki nga xamante ne mooy Ibou nekkoon ci këram waaye nday mi liggéey xamle na ne moom day ki ko yónnee yooyu la fleur du Ibou Touré mi ngi ko xamle nag ci ginnaaw ki nga xamante ne jot naa publier ab bataaxal ci compte Snapchat bam lam ca wax mooy lii ma leen di liiral les fleurs ne viennent surtout pas de mon nec on est passé à autre chose c'est une nouvelle histoire d'amour qui commence machallah maanaam mi nga xam ne ci bataaxal boobu ne ki ko yónnee fleur yooyu jógewul benn yoon ci ki nga xamante mooy Ibou nekk ci nim ko waxee ex jëkkëram waaye ba tey ca ma Adja Diallo di xamle rek ne tey na benneen ànd bëggante ci diggante digganteem ak keneen lii lee bokk na ci liy firnde ne dëgg-dëgg ñoom ñaar ñi lee seen diggante maanaam ki lee di Adja Diallo ak Ibou Touré seen diggante ba tas na suñu fàttalikoo bu baax ci ay weer yi ñu weesu daanaka ki lee di Adja Diallo jëloon na fi ndogalu ne dootul nekk ak ki lee di jëkkëram waaye sa gannaaw sa mujj nañu ànd ak ñoom ñaar ñi lee yàgg nañu di féewaloo waaye itam di àndaat waaye bi la yoon mel na ni dafa jeex lu ci menti am ñenn ñi jàpp nañ ne couple dafay ut bës moo tax ñuy dund yenn xalaatu askan wi ndax ñoom ñaar dinañ delluwaat am déet laaj samp na foofu lu ci mën di am lii ñu seen muy ram di direeku di ñëw moom tas bu leer nañ la mel na ni kii lay di Adja Diallo fàtte na digganteem ak Ibou Touré ba ñu sukkandikoo ci xibaar yi ñu jot nag ñoom ñaar seen diggante boobee li ci indi ñagas ñagas bi mooy itam wàllu jigéen te lii nag du guléet ci ñoom ci fàttali ñoom ñaar ñile benn ci seen ay xuloo bokkoon na ci li ko sooxee di kii lay di Ibou Touré dañu ko jàppoon loxo si poos muy Diallo moom kenn bi ba mu yegee mbir mi jotoon na fi indi coow lu rëy bu Touré mere woon ko ca lool ba tax mu dal di koy dóor dóor yu métti waaye ginnaaw sa saafara nañ mbir mi ba ñoom ñaan ñile ñu juboo àndat lu ci mënti am daal doy na waar Tactic TV dina leen ko toppal ngir indi leen ci yeneen leeral ñu ngi leen di jaajëfal